jërë ngeen jëf mbokk yi ak xarit yi ñuy bàyyi xel ci seen plateforme di web info tv ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu fekkee ne abonné goo leen wooyu leen gaaw daal di abonné daal di nga xamante ni moom mooy cloche de notification bi su ko defee ñu ngeen daal di am suñu ay à temps réel ak Aba le vrai Aïcha mi ngi noonu nag nestour nag ñu daal di dikk si li nga xamante ni moom mooy problème mu euh, Doro Gueye gannaaw bañ ko dooree li nga xamante ni moom mooy euh, mandat de dépo depuis le trois juin bi passé tey jii nag le 28 juin daal di nañuy am information bu leer information bu wér te fii si web info tv moom mii di pdg Doro Gueye nag gannaaw ba mu amoon li nga xamante ni moom mooy problème ak kenn ki ñuy wax benn waay ji nga xamante ni mu ngi woon foofee sa bitim réew problème bi tolloon ci xaalis bu koppar bu toll ci un million un milliard deux cent gannaaw loolu nag moom mii di PDG Doro Gueye nag tey jii di nag ci bésu ajuma bi le 28 euh, juin daal dinañ lañ koy may li nga xamante ni moom mooy liberté euh, provisoire mu doon loo xamante lu leer nañ la ngeen daal koy am en exclusivité fi nga xamante mooy seen plateforme di web info tv d'ici de leen toppal li nga xamante moom mooy information bi su ko defee ñu daat leen koy jox fii nga xamante mooy seen plateforme di web info tv ak Aba le vrai